global textile la ñu jëm Parcelles Assainies unité 12 ca wetu Sénélec ba dem ca baay Fall ba Assane Fall bëgg fallu tissu yu baax yi wàcc nañu gesner yu baax yi wàcc nañu bazin riche yi wàcc nañu bazin ay Aïdara xanaa basan qualité ngi noonu til sablé perlage brodé Marie Gueye brodé pirxa ooy brodé pirxa yaa ngoog lii la xale yi bëgg de ak ay qualité fil à fil yu baax yi soit Paris soit Fleurette soit SS ay brocart yu rafet ku koy wut dawal seeti Assane Fall bëgg Fall Fall wax itaguette voile fleurette voile brodé wala sax ngay wut ay velours wala jupir yu baax dawal seeti Assane Fall bëgg fallu ah bëgg fallu indi na wax njaxas Baye Fall ana Baye Fall yi daw si leen ana Yaay Fall yi daw si leen Assane ko am de ngay wut jazz couette wala dentelle wala brodé yu baax Assane a ngi noonu kay ma jox la numéro téléphone am Parcelles Assainies 1 ba 26 moo leen di solal yu baax yooyu 77 967 78 88 wala 78 193 35 35. 33 855 14 95 ciy bëgg faal

li nga may nii comme ay lépp na lippoon ci man fi <laughs> xam naa ko laa sàmbe. Kia moom ma lépp dafa raccroché rek ma woo la li laa doon doyee. Damel eh, Damel est-ce mi ngi xalaat est-ce que mi ngi fàttaliku fi mu jaar ak Nafi mbay yëpp ba li am tay dafa fàtte. na ay njabootam na fi ay waajuram bàyyi ko ndax dammel nafi fi daj lu nekk bàyyi buntu kër yëpp ne dammel la mm-hmm. bañalul dammel dara mm-hmm. dammel àddina jaay na ko hmm. mais xanaa booy sëy ak nit ba mu namm ay juróom jël ku téléphone am di passé un coup pour déggante ak sa yaay xanaa loolu góor gu nekk war na ko nangul soxna vraiment vraiment li tout cas bu dof dof la bu àdduna yeey ko man mii magam di cousin wa man lay njëkk a gàcceel parce que nag ba ñuy ñaani ñu néew lañu woon mais nag àdduna dina ko yey moom anamu sax déjà woo naa ko nee na mi ngi ñëw <laughs> fii laay toog xaar ko ba mu ñëw xaw ma kan la yab mais man bokkuma ci ñum yab nga xaar kay mais il se prend pour kii ba di tere Nafi pour mu jot ko ay waajuram dafa yëg dafa dafa dafa yëg dafa yëg boppam léegi dafa teg der damel damel damel day exagéré. yéen a fi comment lu ah. damel dafa dem marché eh. man fekkuma ko fi sax. booy dañuy daal li tax sëy léegi mag ñi fokk ñu si jàpp quoi. billaay mais yow ça va. cool. fii dafa sedd nag. non trop la def. kaw la may fàttaliku rek. mais sa waay. waaw mais sama gars yi nice. lépp a ngi toog. incha rek moo tax ma waroon ne la maa ngi sa gàlle. woowaale ma moo. waaw ba yaay kan. Mass mu fi mbay war na toog nam ma yaayam ne da koy woo téléphone nga taxaw di ko saaga pour bu ko pour quelle raison. Et donc, vous xam ndax yow sama ndey bàyyi nga wala lan la yow ba liggéey sama vie vous du ma ndey sa bàyyi mais maay sa seul xarit bu vous ñu may wax dëgg. Mass may tu penses que tu es responsable <laughs> déjà n'as pas de respect envers moi parce que waruma toog ngay saaga secondo mooy affaire de yi ngay Qui pour la ah. kii sa xarit la. am na droit nekkoo ci yoon mu teg la ci yoon wala danga bëgg ma fàttali la fi jot jaar yëpp yaa tax mu sacrifier laay fam yëpp mbokk yi wax ñëpp wax mun ni yow la mais fan fan nga teg na fi soxla way juróom di ko woo nga ne ko du ci dal ba di ko saaga bëgg a dem ba koy dóor. kon si je comprends bien moo leen woo. eh na fi woowuñu yaa moom moo woo téléphone. Ah. xam nga kii na fi mbay da jomb nee naa la sax sax sumu toog si la kii du sa lekk sama lekk la. <laughs> gis nga Mass wax bi boo ko bàyyiwul di répété naa la ci de ci lu metti te bëgguma fa yegg ak yow arrêteel kàddu yooyu dafa am leneen loo ci doon. gis nga ku fàttali la fal booy follee ko dalay bett. Nafi tu as intérêt nga téye ko sa fukki loxo ak juróom dégg nga bu baax lima la wax te kër gi nak que ça soit la première et la dernière fois may ñëw di régler ay genre situation yu melni hmm. parce que may ñu lo tof ya ngi deug bu baax. ok Momo jikko ñu dem way te nga baye kay yi. yow attends Momo ci indiw la fi wala yow. hé ki dafa ñak fer Momo jikko ñu dem waaye. non non non toogal toogal man dama soxla non non. kii maa ko fi indi maa moom ay ànd. lenn dinaa la ko wax fii bu fi ñëwaat mukk problème mu na fi indiwaat ci kër gi. bàyyi kii ñu dem nag ñàkk fayal trop. li ma la wax dama ko bàyyi xel bu baax. ñoo ma dañ may rey mu wax mu portugais am bi toog naa no c'est que <laughs> man dama yaakaaroon ni sax lañ jëm di ma xaar ñu yabaate nañ ah. proposé rey. yow gaay yaa fa nekkoon démb. Ousseyn fenn. kon yow ñëwoo ci kër gi. dina ñëw eh, kër gi. de démb wàcc na ba zéro. wàcc ñu mën a xarit ci yow doo yëg dara yow daal démb na fi mbay yaayam de la doon woo. yaa ja raccroché ko au oh, li ci gën a pire dammel tombeek action bi dafa du Nafi Mbay ba toog ci kawam déetawaay dafa mbajate Nafi ba lex ya daa xonq lex ya lépp a xonq ci rouge dammel mii nag war na noo wax ak moom de waaye nag lu jën njaag na njaag de dafa ñàkk fay dax amul fulla ci boppam <laughs> loolu ban euh, ay midi midi treize treize heures la exactement <laughs> maa waaru Ousseynou yaa mën a fen Ousseynou kañ koy changé nga bàyyi nga yaakaar yow li nga nekkee nii mooy dëkk mooy àddina Ousseynou loolu nga foog yow problème bi ngay ñëw ak ñëw ak fen ak wax lu la wóorut man maa ko réglé xarit damel baa xam nga ne man maa ko woo baa xam nga ne coono man maa ko lijjanti yow yaa fekkee fu fu fu demee li dóoree na fi mbay yow nag na fi mbay tey laa xam ne yéen a ngi ko jàmm Ouzin kañ ngay tiit nga ragal nga bàyyi. te nga seytaane yow yow te nga seytaane yow na fi mbay war naa am problème yow woowoo ma yow ngay woo xaritu dammel bi muy jógee koñ ba koñ di ñëw te man ma dekk tout près doo ma woo man hmm. seytaane nga. xam nga woo man sa comportement yow lu déjà fekkee woo yaa ngi nettali. yow boo fekkee woon fan la fan la kaa bi jëm Ouzin rek leen nga changé man dama tiit yow nag ndax Ouzin yow yow ma yow pare woo sax pour bàyyi yow yow da nga yokk sa niveau bàyyi woon seytaane nga yow mi yaay seytaane bi ndax fenn Ouzin tey la ma leer doxal yow doxal rek taxawal nag du ma dindee gum de dangay compter ba pare waan waan waxal three four

Mm. wala nga ne ma dafa jënd diw mm. wala demal jëndi suba mm. dama lay facturer lu plus que loolu léegi nag ko doon denc sérieusement waaw comme jënd nañ lal gayil sekk di ko ah waa gayil sekk di ñoom jaay nañ ñu ba pare te damay bëgg loo xam ne xaalisu dammel kese vraiment xaw sax la lay wax maa ñaanal bépp góor bu yeewoo ci suuf si yàlla may ko jabar ci mel ni yow. man tamit maa ngi ñaanal bépp jigéen yàlla may ko jëkkër ju mel ni yow. tamit jëkkër ju mel ni man yow rek yaa ko mën a am keneen mënu ko am. man tamit jabar ju mel ni man yow rek yaa ko mën a am jéeg saala cere mu jigéen way ndeeg saala dikkeeg joor. keneen mënu ko am dama bëgg dogali wala lan la. en tout cas. Hmm. yal nañu yàlla may njaboot bu barkeel. sànq wala eu wax ak yow faale woo ma ma faale. baby toi aussi. nu mu bàyyi s'il te plaît ma yeggali benn page bii nii après ñu wax. Hmm? pourtant li ma lay importance de.

Oh, sama uru ay nii hmm. lan la dem ba xew tey suba hmm. damaa demoon hôpital hmm. léegi ma demee nag lii laa fa jëlee lii lan la je suis en état de grossesse un mois i non damay waaye lii dama ko capture ci net bi dama dama dama laa yeb bay ci net bi di ñëw di la ko indi toi aussi. da nga ëmb. waay. waxoon image bi. kii yow la. non <laughs> non lii du dëgg non damay génn néeg bi non lii nekk waaye non mënul nekk bay bàyyi ma waaye. mais sérieusement da nga sama doom man man man. il est devenu papa. non. <laughs> man ni nga jongomaa ni tay ji ni lan la. man sa xeetu jongo ma tey jii nii jaaxal da nga xëy rek gën a rayonaat xew. beli takka ba yaq gis na lolu xol bu neex. may ma ci gaayo yu yoo wul ba pare xanaa dama dof vas-y. tak moy sonal duma ko trouver gaayo trouver tous. <laughs>

oh Ozé <laughs> surprise bi Da nga bëgg bébé ki kii pas do un peu bu kon xam nga ne sama xel ci loolu la nekk xam nga sama xel ci la ni ma koy tégué ñuy ànd di sañse ma koy firee ka létt sama xel bi jigéen nga gis ñu jigéen nag maa kiyaa nag waa am ñiin yàlla da koy def <laughs> kontaan naa de mais na xam nga problème laa ah? xam naa ni ma ko yëgee moo tax ma tiit sama bas-ventre bi day bëgg a delluwaat hôpital moom demain ou xam naa nga gunge ma xoolal solution bi gën a gaaw hôpital xam nga nan lay def am na benn boutique bu nekk fii ay reen lay jaay yu bio naturel. Hmm. xam nga suñu jaay yi nag loolu la xamoon naan reen seen bébé bi taxaw dëgër. ñu nekk ci jàmm xoolal dara du la jot. boo ko xesee naan jàmm ngay am te sa douleur dina wàññeeku le temps que ngay xaar ba suba ginnaaw suba douleur bi dalay sonal. bàyyil ma daw foofu ñëwaat andi la ko ñu def ba baax. yow damaa kontaan. a soulager. <laughs> tabungkan itu Ué, ini Minha tá passando, cara, minha de pour fas yéene ko mélanger pour lan la. té dég nga lim la wax bu baax né na la ñett façon garab yi ni boko mélanger nit ku ëmb waru ko naan té yow yaakaar na né ëmbo ko lan ngay doy garab gi. Khadija lim may wax ci sa ëppal gi rek mo ngi ni yow da ngaa mënta tay da nga gis mo ëmb suma ma est-ce que aussi dina naan garab yi na fi may le biram di metti ma ko koy défaral pour mu calmer douleur bi. yow ose dëgër nga fit de yow lan mo la wóor né na fi may ëmbul na fi nek xalé bu jigen bu ndaw du dogo duggu ci eh, ci ki ci sey nga bëgg ko mélanger garab gi ni di ko jox bu fekkee dafa ëmb na doo ko lo limay waxat sa ëppal gaa ngi nii nafi lu yëndu ci mom fanan ci man te en plus bu ëmbon dina ci xam dara tu penses que dof dof bu tax ma kay muy ëmb may jël garab yi di ko mélanger di ko ko jox te duma ko xam reglel osé osé xam naa la bu baax dé wa baax ma waxuma lolou sama yaay moma ma yóon nga jox ma dépense may dépense demal soo nee ko dinaa ko envoyé téléphone bu demee na ko xool.